nekkoon njiitu réew bu njëkk bu Sénégal di Léopold Sédar Senghor moom mi ngi génn àdduna ci ñaar fukki fan ci weeru décembre ci atum 2003 ba mu làqoo ñaar fukki at ngi nii ki nga xam ne kat mooy Léopold Sédar Senghor la mu bàyyi ci héritage maanaam ci ndono ci Sénégal bari ba tax na itam rek nga xam daal mooy wàllum liggéeyam bi nag moom ñu bëri ñu ngi koy jéem di wéyal la moom président poète bi ndax dimension bi nga xam ne kat moom la amoon ci li nga xam ne mooy ay yu bind ak ci wàllum xel ak ci wàllum politique bi nga xam ne amoon na ko daal di firndeel lëkkaloo bi nga xam ne moo dox ci diggante nit ñi ak ñi nga xam ñooy saafante ak moom ma ñeneen yaakaar ni tamit moom mi nga xam ne mooy fondateur ci histoire commune bi ak euh, dëkk bu nga xam ne des koy tabax ak état de droit noonu ak Senghor gi nag moom nekk na œuvre boo xam ne tamit ngeen mënu ko wute ba tax na lam ci bàyyi fi Sénégal yaatu na lool te sax nii na mënoon demee ndax njiit réew bi woon di Léopold Sédar Senghor moom ci boppam boroom xam-xam la woon jaar la ko ci yaa xelam ak li nga xam ne mooy jaar-jaaram waaye tamit li nga xam ne tamit mooy ubbi teeg ci li nga xam ne mooy wàllum culture ci wàllum philosophie Senghor nekkoon nit ki nga xam ne daal benn la fi woon ci dund bi yëpp daal ni nga ko daal di yaa consacré ci ay projet de société tabax li nga xam ne mooy dëkk ak li nga xam mooy état ak ci wàllum développement moom ci boppam gis nañ ne li nga xam ne mooy kenn idéologie ci wàllum culture fexe ne tamit ba daal di koy suuxat laataa muy dem ndono loolu nag jar na ñu daal di koy càmbaraat xoolaat ko saytu ko fexe itam rek ba ñu daal di koy téye suñu fukki yoxo ba tax na moom Léopold Sédar Senghor mii gis nañ ne nitu ko jàmmale woon naam waaye tam ci wàllum civilisation universelle li mu duppee rendez-vous du donner et du recevoir loolee tax na ba wàllum mondialisation bi kat ci la ñu dugg ba tax na moom li nga xam ne daal moo ñu gën a soxal mooy justice ak état de droit.